ministère en charge des élections ak direction générale des élections ñu ngi koy jéem pour que chaque fois bu ñuy jëm ci élection ñu gën a yombalal parti politique yi euh, donc euh, opération yi mais tamit fexe ba askan bi mën a euh, dem voter ci ay conditions yu gën a baax c'est vrai que proposé nañu tirage ñu ñëpp ñu nangu ko ñëw ñañ ci tirage mais am na réglé problème bi yëpp parce que xam nga ni dañuy dem ci parrainage e que euh, ni ngay ñëwee ci ordre bi maanaam ñu ñuy mujjee woo ñoom la ñooy am problème pour peut-être affaire affaire doublon ak yooyu parce que xam ngeen ni loolu mooy préoccupation parti yëpp ak coalition yi donc ci ci ci ci mbiru parrainage bi donc ñun tey coalition Benno Bokk Yaakaar si vingt cinq parti euh, ñi fi nekkoon ñun ñoo génn vingt deuxième c'est pas forcément cadeau pour ñun parce que euh, dinañ dinañ dinañ balaa ñoo jàll ñu bëri dinañ jàll donc bu amee problème doublon ñun ñun ci ñu sunu kaw lay dal mais aussi bu ñuy des disposer bulletins yi ci bureau de vote bi jour euh, élection yi ñun tamit ah, suñu sunu liste yi day nekk fu sori. donc euh, mais dañuy dañuy nangu parce que ñoom luñ ci jublu euh, lu baax la mooy fexe ba chaque fois mu ñu gën a améliorer parce que yenn fàttaliku présidentielles yi ba ñuy déposer parrainage yi moom ay xeex la ak ay xëccoo yu bëri la. bon tey yombalal nuñ nañu foofu mais loolu réglé wul problème yëpp donc il faudra bu ñu génnee ci élection bi ñu toog ñu évaluer ñu waxtaanaat de manière consensuelle ñu mën a trouver ay solution yoo xam ne day yombalal liggéey bi déjà yombalal liggéey bi parti politique yi fexe tamit mu yombalal tamit citoyens yi possibilité ñu def seen vote euh, ci condition ci anam ñu mu a baax